الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوسي تي في جسان فيدوبي mbokk julit yi mbokk talibé yi mbokk internet yi mbokk téléspectateur Kossy TV yi ñu ngi am mbégte contentement bu baax a baax ci ànd bu rafet bi ngeen ànd ak programme Kossy TV yi tey ñu ngi fii ci kër Abdoulaye Bayaro ñu gën koo xam ci këru gan prix international Cheikh Ibrahim Niass bi nga xamante ñu ko doon amal at mu jot euh, ci waxtu weeru koor tey nag ñu commencé ko ci bés bii nii ànd seek Cheikh Abdou Malick Cheikh Ibrahim Niass mu fas yéene rek andil ñu lenn ci leral ci yeen kàddu rek mom nga mëna am pour jox ko mbokk talibé wala mbokk jullit yi nga xamantene prix international ci Ibrahim ness bi nek na dimbal ci si way nek ni gor gorlu ak sax way xam xam-xam ci lenn ci ay talibé bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi alqail inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل أهل القرآن هم أهل الله وخاصيته على بركة الله تبارك وتعالى وتحت سامي إشراف اللجنة العليا للجائزة خادم الأمة وخليفة صاحب الفيضة التشانية مولانا الشيخ محمد الماحي إبراهيم ياس والإمام الموقر سيدي الشيخ أحمد تيجان بن سيدي علي وصاحب الفضيلة السيد النائب شيخ محمد القرشي إبراهيم ياس وصاحب الفضيلة الشيخ محمد الحافظ النحوي ولجنتي التنظيم والتحكيم تنطلق اليوم مسابقة جائزة الشيخ إبراهيم نيس الدولي لحفظ وتجويد القرآن الكريم الدورة التاسعة دورة الخليفة سيدي علي سيسي رضي الله عنه وتستمر فعاليات هذه الدورة إلى نهاية شهر رمضان إن شاء الله ولا تزال الجائزة تفتح أبواب التسجيل إلى نهاية شهر مارس الجاري هذا ونتمنى من الله تبارك وتعالى نجاح هذه الدورة والتوفيق للمشاركين والعاملين عليها كما نرجو منه تبارك وتعالى أن يجازي عنا الذين آزروا هذه الجائزة منذ تأسيسها وساندوه خير الجزاء ونشكر كل الذين ساهموا في نجاح هذه المهمه ونرجو الله أن يبارك فيهم وأن يحقق لهم المطالب والمقاصد إنه ولي ذلك والقادر عليه وما ذلك على الله بعزيز بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barakaatuhu gannaaw buñ sante mi garanti téere bi ne moom yàlla moo ko wàcce te moom yàlla moo koy wattu dañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mi wax ne ñooñ quraan ñooñu ñooñ yàlla ci ndigali lejnat bu kawe bi nga xam ne moo saytu jaayise bi di lejnatul uliya ci njiital خادم الأمة خليفة صاحب الفتى التجانية شيخ محمد الماحي إبراهيم ياس الإمام شيخ أحمد تجان بن سيدي علي السيسي ak Seyid honorable député شيخ محمد Qarashi إبراهيم Niass اك الشيخ محمد الحافظ النحوي اك نياري لجنه ييغا خامنا نيو سايتو ليغي بي موي نيغا خامنا نيو امي جيري بي اك ني امي اورغانيزاسيون بي دا نين دور تاي ليغي بيغا خامنا موي كونكور بيري شيخ ابراهيم انترناسيونال اون ريسيتال دي سان كوران في تي مدينه باي liggéey bi nag dana continuer ba fin ramadan incha allahu taala ñu ngi ci neuvième édition bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel alxalifa mawlana cheikh seydi ali cissé radiallahu taala anhu

jaayse bi première année bi mu njëkkee am ci deux mille euh, treize prix bi gënoon a mag cinq cent mille la woon pour ki jël pay amoon na deuxième trois cent mille troisième deux cent mille waaye ni jaayse bi di doxee dem nañ ba mu àgg ci ay sept millions pour ki nga xam ne moo jël pay te ren incha allahu taala yéene am mooy ki jël pee mu am lu mat dix millions ñi ci topp tamit am ay ndàmpaay yu mag wante prix bi nga xam ne moom la jaayisa bi gën a jël jox ko importance muy tafsir Cheikh Ibrahim Niass bi nga xam ne juróom benn mujallad la mu firi ko alquran yépp ci arab comme jaayisa bi Cheikh Ibrahim Niass lañ ko tuddee rafet na bu amee ku jël kub bi mokkal alquran yépp ñu yëkkati firi alquran boobu jox ko ko ne lii mooy sa première cadeau ndax yi ci des yépp alalu àdduna la tax koo am solo mais firi alxuraan bu jafe boobu nga xam ne néew na firi bu mel ni moom ñu tuddee Baye Jaayza bi cadeau bi nekk firi alxuraan bu Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu loolu moom duut loo xam ne dafa yomb looloo tax loolu la ñuy jiital comme cadeau après ñu door a jël xaalis teg ci jël tamit yeneen cadeau yoo xam ne moom la ñuy dàmpee xale yi incha allahu taala ñu ngi ñaan yàlla. mu kawe mu màgg ma mu defar ñu ndam ak tawfiq ci liggéey bii ñi dëgmal te di ñaanal képp koo xam ne mi ngi participer ci concours bi nii ci ay élèves yàlla defal leen tawfiq wante tamit di ñaanal ñi nga xam ne ñi ngi ci di liggéey ci jàpp ci nu mu gën a rafetee ak ci tasaare ko ci nu mu gën a yaatoo ñoom ñëpp ñi ngi ñaan yàlla mu defal leen tawfeex ñu ngi ñaanal ñi nga xam ne ba jaayse bi sosoo ba léegi mosu ñoo dëñ te ci dugal seen loxo di ko dimbale yal na yàlla nekk seen ndimbal te yàlla leen yàlla fay te yokk seen man man yokk seen kattan ci barke alquran bi bi nga xam ne moom lañuy ñuy liggéeyal ak ci barke Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhu bi nga xam ne moom lañ tuddee concours bii nii yàlla am na loolu mën na ko yàlla ko def salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa gannaaw bu sëñ bi yëkkatee ay kàddu yu am solo yile nga xamante ne ni tax na dëgg dëgg tey ku dégg yile kàddu dana tax nga gën a góorgóorlu waaye kilifa yi yaay yi ak baay yi danañ gën a mën a ñaaxaal seen doom si daara ji waaye day dëgg-dëgg ndàmpaay lii la nga xamante ne ñu ngi koy neexalee taalibe yi li si gën a am solo te gën a am njëriñ mooy tafsirul quran bi nga xamante ne Mawlana Cheikhul Islam Aj Ibrahim Niass Baye moo ko def ñu mool ko jël loolu jox la ko kàddu loolu doy na dund àdduna ak àlaxira ñu ànd ak lenn ci ndongo yi mu ubbil ñu concours bi naka lay tëddee a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa ya'tukum saratu fadu wa huwa mu'arrad أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون mi ngi nonu li mo amone fi nga xamantene ni mo nek ci keur Abdoulaye bayaro ñu gën ko xam ci keuru gan prix international Cheikh Ibrahim recital de Coran satul Quran bi nga xamne at mu jot talib yaa nga joge ko ci gox yu fasantiko ngir ñëw mbindu mi Cheikh Abdoul malik neena yokkat nañ ko kon kep ku deg bile appel ak ouverture bi nga xamantene ni ñu ko don defé fi ci biir keur gi man nañu wat o ak Cheikh Abdoul Malik ak équipe bi and ak mom ngir gëna mëna wajal a waajal seen yokku si xam-xam ak seen góorgóorlu bismillah wasalaatu wasalaamu ala xayri rasulillah sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ya rabbi salli ala muhammad wa alihi عدد الخلائق حصرها لا يحسب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وبعد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئنا من أوطاننا وما جئنا من مصر إلا ومعنا رسالة إلا ومعنى رسالة فنحمل هذه الرسالة وهي رسالة الإسلام ليس لأرض السنغال وحسب بل إلى العالمين أجمعين رسالة الإسلام والمحبة والأمان الذي ما أحوجنا إليه في هذا العالم المليء بالظلم والطغيان بالتعدي على الإنسان وما له من حقوق وواجبات جئنا إليكم نحمل هذه الرسالة والتي كانت على عاتق الأزهر الأزهر الشريف منذ نشأته وكلفه الله سبحانه وتعالى بهذه المهمة جينا إليكم لنرسل إليكم هذه التحية الخاصة من الإمام الأكبر ومن علماء الأزهر أجمعين وهم في شغف وفي تطلع إلى المجيء إلى أرض السنغال إلى هذه الأرض المباركة وإلى زيارة أولياء الله الصالحين وإلى أبناء وأحفاد الشيخ إبراهيم نياس رحمه الله تعالى ففي الحديث الشريف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ليس شرطا أن يجتمع الاثنين أو يعاصر بعضهما البعض بل قد يكون أحدهما ميت والآخر حي فلصلاح هذا الرجل ولتقواه يحبه الناس من بعده فيكون أيضا ضمن هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فبهذا الحديث فقط تكون الأمة جميعا بحب أولياء الله الصالحين تكون جميعا في الجنة وتكون من الأمة المحمدية المرحومة صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة وبهذه المسابقة السنوية جائزة الشيخ إبراهيم نياس في السنة التاسعة نقول إن لله أهلون وأهل الله هم أهل القرآن وهذه المعجزة الخالدة القرآن الكريم أنتم أدل عليها أهل السنغال أنتم أدل الناس عليها لأن أكثر أهل السنغال بل جميع أهل السنغال ما شاء الله حافظون القرآن والله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الأطفال والمكاتب ما شاء الله يمتلئون ويحفظون القرآن الكريم فأنتم أدل على معجزة القرآن لله سبحانه وتعالى في هذا الزمان وفي كل الأزمان الطفل ما شاء الله لا ينطق العربية ولا يحسن أن ينطق كلمة ولا معناها ومع ذلك يحفظ القرآن فهذه آية وهذه معجزة دالة على أن هذا الكتاب معجز وأنه كلام الله تبارك وتعالى فصدق الله حين يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فنشكر الجائزة جائزة الشيخ إبراهيم والقائمين عليها من لجنة تحكيم ولجنة تنظيم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم هذه النعمة وأن يديم ديارنا عامرة بالقرآن الكريم وأن يفتح علينا فتوح العارفين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم gannaaw bu gan yi ñëwee yëkkati ay kàddu fekkee jotaay bii di prix international Cheikh Ibrahim Niass yëkkati lenn ci ay kàddu ñu bàyyeeg Cheikh Ibrahim Mar mu leeralal ñu yile kàddu gannaaw ñoom xam-xam ak azhar moo leen yëkkati te lu gën a rëy alquran fii ci Medina amu fi ñu may leen ñu ñëw bokk ak ñun lii ñu ñëw bokk ak ñun bokk bu rafet Cheikh Abdul Malik Ibrahim Niass raisu jaayizati dawli jaayiz Cheikh Ibrahim dawli yëpp bi mu leen di tarxiib wax na leen wax boo xam ne ci xol la jógee nee na leen ñu ngi leen di tatagal seen kër di wax li waykat bi waxoon ne yow suñ gan waxtu woo ñëwee suñ kër jàppal ne ñooy gan ñi yow yaay borom kër gi euh, loolu ñoom xam nañ wax bi li muy firi mu tegal leen ci itam ne su fekkee ne am na njàmbaar tey taxaw ci seen kanam di wax làkku arab te loxuñ rafuñ Égypte daf caa am cër bu rëy gannaaw bu Mawlana Cheikh l'Islam Hadj Ibrahim pare ci ñun loolu il faut ñu gërëm leen ci il faut que itam ñu delloo leen ci njukkal ñoom itam ñu jël ñaari kàddu ñi njëkk a ñëw ki nga xam ne moo jël ci ñoom kàddu nee na li nga xam ne moom la alquran wax ne ñun jàppanal nañ alquran dégg nga pour ñu mokkal ko di ko fàttaliku loolu dañoo fekk tegtal bu wér fii ci kër Mawlana Cheikhul Islam Hadj Ibrahim ndax yaafite bii di wax wëttuloo xale alquran ak tajwid loo ko ko ci niveau boo xam ne niveau international la loolu amuñ tegtal bu gën a rëy loolu ci yàlla waxoon ne danañu wëttul alquran ñoom ci seen seetlu ñu ne xale bu ndaw déggut arab boo ko làkkee arab mënulaa tontu te itam baat yi muy wax xamul sax maanaam bi waaye li muy tëri ci alquran moog la Khalil Husayri ak Abdou Bassi di tëri benn la nee na loolu itam fekk nañ fii ñoom ci Medina Baye tegtal bu rëy boo xam ne li yàlla digg woon ci alquran ne dana ko wëtt wëttoo ko ci dënnu doomu aadama yi fekk nañ ko ci xale yu ndaw ci daara yi loolu nag nekk di loo xam ne ñoom emuñ ci rëyisul bersal azhariya daf ci dolli nee na euh, ki nga xam ne moo doon wax itam wax na xam am solo nee juróom-ñaar ñi nga xam ne yàlla daf leen di keral bés bi nga xam ne ker du am bés pénc lu mooy koo xam ne yàlla la keral juróom-ñaar ñooñu ñoo xam ne dañoo bëggante ngir yàlla ña nga ca biir nee na nag bëggante ngir yàlla du sart ñaar ñi toog di xoolante di dund di dund kenn ka mën naa dem bàyyi fi lu baax loo xam ne ku bëgg lu baax boo ñëwee bëgg ko te nee na kooku gis nañ ne mooy cheikhul islam Mawlana Alhaaj Ibrahim ñas ndax niñ ko bëggee fii ci Sénégal nee na noonu lañ ko bëggee ci az ca fa nga xam ne mooy misra tudd na fa sax seexul azhar boo xam ne ba ma koy waaja a moom moo ko njëkk tudd ne ma cheikh saltuun ne na noonu la mel itam ci àdduna bi yëpp kon ñu ne ñoom am nañ sens bu em ni bëggante ngir yàlla ñëw bokk ko ak koo xam ne àdduna bi yëpp nangul nañ ko ko te itam bu fekkoon du jaam boo xam ne bi yàlla gërëmee dafa wax waa asamaan eh, ne nañ noddal waa suuf ne jaam bi bëgg nañ ko ne ko ñëpp bëgg su fekkone ne amutone li du meuna am kon ñom am nañ sens ñëw bok ak Cheikh Ibrahim jotay bo xamne jotay beugante ngir yàlla la ci ron jaayisa bi nga xamne ci lañ nek reisul biasa bi tegal ñu ci itam nag ne ki nga xamne mo Cheikh Ibrahim turum dafa daj aduna bi ci njub ak juble ak jàng ak jàngale ne rawatina alquranul karim macha allah kàddu yi am na solo lool waaye Baye ak international am loolu waxtu woo laalee bët daj ko xel gis ko loolu mooy sababu tey suñ mbokk yi li ngeen jàkkaarloot mu wane rek ne moo la Cheikh Ibrahim si biir réew mi ak ci bitim réew waxtu wu ne l'islam ak diine rek moo nekkoon yitteem ak bëgg-bëggam ak doxam kon ni lii mooy jotaay bi nga xamante ne moo amoon fii ci euh, salle de conférence ànd kooko si Abdou Malick ñu ngi joxante ak yéen da incha allahu rabbi si yeneen jotaay yu mel nii wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen vive!